dégg naa da doon xeex nuy naan maa lay fay da doon xeex ak sa man aw ma jotu xeex mais yow lamb ji ñëwagul sax ngay xeex ma ne aw ma jotu xeex xale bu ndaw am doole du xeex da ko doon duma dama koo bëggoon duma parce que dafa xamati ah yow Petit Sélé yow mi xam nga dama téye dañu toog arène nationale mu yor lamb am di tali tali mais am na loo xam ne da nga dugg ba pare bëgg cee génne mënul nekk ah, ah. parce que moom combat bi da cee dugg ba pare mu leer ko ne combat bi instant bii nii bëgg na cee génn ay mbokkam bëgg nañ cee génn mais mënul ne. bu bëgg a yàq ko. xale ak mag du ñu benn. eh ma nee na magoo ko. barke alxuraani karim xale ak mag du ñu benn. yaa ko moo ma mag téeméeri junni yoon xale bu ndaw man maa ngi nàmp ba léegi déggoo ma de kii paala. sol jëm mi. barke alxuraan paala te bu jour ba dinaa ko woon. kii nii nawloo wu ma ko damay mbabat di mbabat di mbabat ba combat de cinq jours bu ma ko CNG maye ma bëre. tey nga nawloo soldier kii paa la. te nee ma ne paa la paa. xam nga li ma lay paa la nekk paa moo tax may nekk fee taxaw di saw may attaqué mais weex na ko xat. kon kii ngeen ko am njaay joxal jóg dama ko doon ñuus mu mooy dañ ko dañ koo dimbali. tey nga indi Toubacouta mu nekk dig nga xam ne ki muy bëreel fii la dëkk ci stade bi day bërëngu aksi ngeen indi ko tey lu ngeen waa waaw ñun ñun Touba xam nga miin nañ victoire ci moom du premier combat du deuxième combat du troisième combat yàgg nañoo indil ndam amagul benn defet xam nga ñëw nag temps dakaar Dakar def la même chose tey mu ñëwaat da koo war a xam nga da koo war a dooliwaat te bu ñun pare nañ physiquement pare nañ doole pare nañ lépp. noo mënul yomb parce que mbaru Pikine la mais terewul dañuy jaar ci kawam jàll. ba mu nekkee feeraay la perte feeraay kilo fukki dërëm la kon mënul seer ci ñun. ana Sélémène. Sélémène mu ngi ci kaw tribune yi. lu muy xaar. dina wàcc si. lu ko teree wàcc. parce que dañ ko war a wutal combat jànk. mu bëre si Dakar parce que ñun suñu combat yi ñu bëre Mbour ak Thiès yëpp dañ koy bëre mooy loolu demul fenn nañ ñu wutal combat jànk ñu bëre ñun ci làmb ji lañ bokk ñun mbëru mbapat yi dañoo bokk ci làmb te ñun ñooy neexal làmb ñooy feesal làmb policiers yeeg ñëpp amul kenn koo xam ne du ñu supporté mais ay soldats yi nga xam ne kenn xamu leen ay soldats yi kenn xamu leen. yow soldier di ndaanaan. ku leen xam. daa mel seen jumukaay tey daa jege. waaw loolu garaawul. mais lan moo fi ngeen ñëw samp fa seen seen. parce que CNG ñun ñun xamuñu loolu. Ah. parce que maanaam xam nga problème bi fu mu nekk mbër bu ñëwee da nga xooma ménagère bi la xooma CNG la xooma kan la mais ñun bu ñëwee lamb ay tegtal la rawat na ñun mbëru mbaafaat yi tegtal lañ xam suñu maanaam dañu naan teg leen seen jumtukaay ñu war ko faa teg kon bu ñëwee di naan ay poul A ay poul B dañ ko dañ dañu koy dañu ko waroon wax avant que ñuy ñëw. mais loolu seen ménagère moo leen ko waroon a mën a. waaw mais ñun waxuñu ñu dara kon am na droit mu teg jumtukaayam fu ko neex. parce que dañ ko ko waroon wax ne ko Toubacouta say cumbukaay boo ñëwee fii lay tegu mais waxuñu ko fu muy teg cumbukaayam am na droit mu topp ay tegtalam loolu am na ci làmb. jërëjëf ñoom. ok